Euh, maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di sant Serigne Touba Mbacké Khadim Rassoul di aussi euh, wax ne durant campagne électorale bi dem nañ fépp ci Sénégal gis askan wi waxtaan ak ñoom te li ñu gis mooy askan boo xam ne dañu sonn dañu bëgg ku leen génne ci situation yu ñu nekk dañu bëgg dund gu gën gi ñu nekk ñu leen di wax ne ñun seen doom Abdoulaye ak coalition ànd Besal Sénégal bi ñu àndal loolu lañ xam liggéey lañ xam liggéey la ñuy def te dañuy ñaan yàlla bu ñu yàlla yàlla defalee ndam ci lii ñu jëm ah, lii ñuy def tey ñu ñëw def Sénégal bu bees Sénégal boo xam ne suñu expérience homme d'affaires lañ ci indi expérience nit koo xam ne dafa tàmm di créer emploi nit koo xam ne dafa tàmm di dimbale loolu la ñuy ñaan yàlla defal ñu ko ba nga xamante ne à partir de ce soir ñu am beneen assemblée am beneen xar kanam boo xam ne moom la ñuy taxawal ci Sénégal ñu mën a booloo nag ci jàmm ak salaam tàppe xol yi ah jox cër kilifa diine yi jiital leen ci lépp lu ñuy def. ba ñu gunge ñu ñu mën a tabax Sénégal bu bees Sénégal boo xam ne dootul amati bodduxante dootul amati benn xiiro dootul amati benn ŋaayoo ñëpp benn objectif bi la am ñëpp benn mëbëb bi la ñu am mooy ñu tabax Sénégal boo xam ne koom dafiy am naataange dafiy am te loolu yàlla mën nañu mën na ko yàlla nañu ko yàlla defalal ñu ñaan sunu kilifa yi aussi ñu ñaanal ñu si yàlla defal ñu loolu loolu ngeen jëf. loolu mooy. ah sur le plan organisationnel ñu ngi sant yàlla parce que boobu ba léegi gisaguñu benn ay kii yu yu com complainte yu bëri waxaguñu ne am na ay jafe-jafe yu bëri ba ci sama xam kiiwu bopp bokk xibaar yi ma jotagum xëy na ñu am dégg leneen mais man li ma jotagum déggaguma ay jàmbat yu bëri ak ay ñaxtu yu bëri ah ñuy ñaan yàlla aussi mu continuer noonu ñu xam ne Sénégal moom ay ñun ñëpp ñoo ko bokk te ñu lépp lu ñu def rek ñu def ko ci jàmm ak dal. parce que man homme d'affaires laa bu réew mi amul jàmm amul dal du mun liggéey donc moo tax loolu laay wootee pour que nit ñi woote jàmm ñu woote dal ñun ñii fi nekk nii nga xam ne yaakaaruñ dara lu dul suñ doole ñu xëy dem liggéey loolu la ñuy ñaan te loolu la ñuy woote aussi.